mbokki Sénégal dama ñëw tey ngir ñu waxtaanee lu ñu bokk mooy suñu réew. Sénégal amul werante ni réew bu ñu ràññee la ci biir Afrique. ci jamono yu yàgg ba tey Sénégal dafa nekk lamp Afrique gi wu xàll yoon di wane taxawaay saa yu Afrique soxlaa suñu maam yi ba léegi wane nañ fi xam-xam ngor jom fit ba nga xam ne réew gu ñuy déglu la di ko ràññee ci biir Afrique. soxloon mooy fàttali fu ma jaar ak wàllum politique at yi weesu. jëlee nañ ma fi yóbbu fa komoom rawale ma foofu ngir lan ngir taxawaay bi ma amoon bañ ñi dañuy saax-saaxee ASECNA tas ko teg loolu doonul jëriñu Sénégal doonul jëriñu Afrique bu ngeen fàttaliku ci atum 2012 taxaw naa temm ngir ñu wàññi salaire directeur généraux yi tàmbale nag sama salaire bi nga xam ne lu yées benn xaaj ci ñett lañ ma doon mujj fay ndax réew moo xam ne ñenn ñi ñu gën a néew dañuy fayeeku ay millions nekkaat ay milliardaires sax ci seeni pexe gën gaa bëri nag te ndóol di gën a yokk réew moom mënul tekki bu ngeen fàttali ko it année 2017 ma daal di tekki sama ndomboy ministre de l'énergie lu ko waraloon mooy contrat yi bon yi nga xam ne dañ ko bëggoon ba siife ko ci lu jëm ci suñu pétrole ak suñu gaz yooyu xeetu contrat ñoom ñoo indi suñu géej gi jeex te amuluñu njëriñ yooyu contrat moom moo indi suñu phosphate bi amuluñu njëriñ suñu wurus gi amuluñu njëriñ suñu zircon bi amuluñu njëriñ ci biir Sénégal moo taxoon ma taxaw xeex yooyu waaye tey jii ci jamono yii ñu toll Afrique mu ngi ñuy teg bët te jaaxle ci tolluwaayu Sénégal suñu doom yaa ngi dem ci géej gi lu ko waral mooy dund gu tar gi nga xam ne sénégalais yi moom la ñuy dund ci biir réew lu ko waral mooy ñàkkum xëy bi fi nekk lu ko waral mooy liggéey ñàq te mënoo ci jëriñu nga nekk béykat béy te sa mbéy mënoo ci njëriñ nga nekk sàmm sa sàmm mënu la tekkil dara nga nekk ak napp nekk ci géej gi géej gi amul dara ngir contrat yu bon bokki Sénégal amul sikki sàkk ni bu ma yàlla dénkoon réew mi dinaa taxaw taxaw doomu réew taxaw gor ngir yooyee dañ fii ci biir réew ngir sénégalais yi am xëy waaye du yem foofu dañ taxaw ngir Sénégal nekkaat usine Afrique de l'Ouest nga xam ne dinañ ci liggéey liggéey yoo xam ne dina jëriñ Sénégal waaye dinañ ko sax yóbbu di jaay bitim réew war na mën a nekk te dina nekk incha allah ndax réew yu koy def ci àddina bi ëppale wuñu dara ëppale wuñu ressource naturelle ëppale wuñu pexe ëppale wuñu xam-xam dinañ taxaw ngir Sénégal nekk foo xam ne fa la ñuy jublu ngir mun a faju en tout cas Afrique de l'Ouest ku fi bëgg a faju da nga ñëw Sénégal ku fi bëgg a jàng dina nekk sa université day indi fii seen doomu ñuy jàng loolu lépp dina nekk yoo xam ne day suqali koomu Sénégal indil xale yi xëy lu gën a ñàkk ci réew gis-gis moo yorum réew nekk ci ay xeetu xarala yu bees li ñuy wax révolution numérique war nañ ko duggal Sénégal ngir soppi nu ñuy fajee ngir soppi nu ñuy béyee ngir soppi nu ñuy nappee ngir soppi lépp lu ñuy def nu ñuy jënde jaayee nga xam ne soble mënul nekk di yàqu fële ci Kajoor wala di yàqu fële ci Lompul fekk ñi ko soxla fii mënuñu jot soble bokk Sénégal ñee tax ma bëgg a fasanteeg yéen kóllëre signé ak yéen contrat bi nga xam ne ci atum 2024 ci présidence de la république lañ koy siñee xam ngeen nag ni nit koo xam ne du wor ngeen di koy séqal nit koo xam ne kàddoom kàddu la nit koo xam ne réew mi moo ko gënal boppam ñu ngi leen di dig daje ci 2024 ngeen tànn république des valeurs ak candidat Thierno Alassane Sall président la thank you